li nga jàpp ne dëkk bi bu bu ñu génnee manifester président Macky Sall day reporter élection yi. Uh-huh. Sénégalais dañu bëgg élection te Sénégalais dañoo wóolu seen carte ndax Sénégalais wóolu nañu ni président Ousmane Sonko ñaar yi moom dana fa jaar dëgg nañ ko dugal palais. Uh-huh. Macky na leen du dugg pale ñu ne ko amul problème yaay seet dina dugg palais de soit day jaar ci pale de la république bi. Uh-huh. mbaa nga ñu fal ñun. ku nga xam ne moo koy génnewee ci assemblée bee. Mhm. mu jaar ci pale bee. Mhm. dugg ci pale bii. Mhm. <laughs> yaa ngi code de. noonu la demee de. Ah, yaa ngi code yaa ngi code ñun dañ ne ko ah nga ne nga ne duñu falwaaj mu ne déet ñu ne ko waa ah, baax na léegi ñun buntu bii nga tëj fenêtre bee ubbeeku na ñu jaar ci fenêtre bi eh. dugg ubbi buntu bii. Eh. <laughs> ubbi luwaa ji mu dugg. man de comprendre naa la ban léegi nag loolu nag bu ñu ko xañee laa wax. Eh. bu ñu nee damaa tëj bunt. tëj fenêtre sànni caabi waaye lii lu fa des. mais yàlla sax di sa dina seetaan loolu. ah loolu moo tax parce que nee naa leen dafa mel ne yàlla àndul ak yéen parce que bu àndoon bu àndoon ak yéen di yóbbu Sabassy Faye Ziguinchor mu leeral leen dossier ba fa lay mujjee ndax yéen da ngeen ko dem sanctionné yàlla na garaawul xaaral ma war leen liggéeyal <laughs> ba pare ba pare Pape eh. euh, euh, euh, non seulement gëmu ni yàlla dina seetaan loolu.

foofu nag affaire bi c'est là il faudra réfléchir c'est quoi qu'on appelle chaos mhm. parce que est-ce que par peur d'instabilité que Macky Sall reste Quand Macky Sall mooy rester il sera plus candidat on aura programmé les les candidats mhm. bis nous ne demee ba programmer Les candidats yii ñun sommes candidats beaucoup. ci man de c'est jël responsabilité toujours. mais loxol France mi ngi ci biir bu boobaa dinaa jël sama responsabilité dinaa ñëw fii wax la sama responsabilité ndaxte nag France boobu dama cee am lu dama ci duma ci silip mhm. caaye laa ca France waaw danaa ci ñëw fii jël ci sama responsabilité yu mat sëkk nag mhm. te tollooguñu foofu parce que nag la communauté française ñun ñu ngi def suñu liggéey ci ñoom moo ñu ngi leen di wax kan mooy seen ennemi ak kan moo nekkul seen ennemi l'ambassade de France qui fait des, des communiqués. Mhm. Quand il y a des troupes pour demander aux citoyens français de rester dans leur maison parce qu'ils sont en insécurité. Quand mhm. mot indi l'insécurité de ce peuple français ici, ce n'est pas Ousmane Sonko. Qui mhm. les mettre en danger mon ñi régime et ce sera pire suñ fi bëggee Sénégal sénégalais ñoo ko Sénégal sénégalais ñoo nous moom. ku ñu neex de fiy dëkkal mu ngi dëkk ci de

muy suñu réew fi la ñu juddoo fi la fi am dafa am lo xamni li français du nangu France ba tay taxna ñu stigmatiser les arabes mhm. ba téré len sol abaya mhm. téré len sol voile té loolu nekatu sax religion culture la culture la parce que dañu fa béré mhm. di len xatal di changer ay loi sur la famille ñun ñu wara accepter ñun ñu ne fi ci suñu réew mi ñun di xey di gontu am fi seen jamm alors que ces dirigeants ñuy comploter ak suñu ay collabo mhm. pour ñoom rester au pouvoir loolu duñ ko mën a parce que ñun gënuñu ñàkk fayda waa Mali mhm. waa Guinée ëpp ñu ñu jom waa Burkina gënuñu ñu doon africain ñun fierté bi nekk suñu der bii suñu deret bii ñun ak ñoom ñoo ko bokk français yi ñoo ñu fi romboon ak euh, yeneen dëkk yi xotti ñu def ñu ay pays mais ñun on est le même peuple africain mhm. et le même peuple africain crie à la justice justice la justice commence par avoir le droit de choisir on est des citoyens africains on hmm. veut choisir Nous avons commencé à choisir Les français 1895 les français ne vote ils peuvent pas se permettre ils ont beaucoup choisi ils ont yàgg de def lu ñaaw mais maintenant le peuple a la main Nous ñu ñu jouer sur ay cartes nous demandé wuñ nous, wala ñu financé ñu wala ñu boot ñu wala ñu rogganti ñu mais dañu nañu nañ ñu bàyyi ñu jouer sur ay cartes légalement mm-hmm. si le peuple ne nous choisit pas nous comprendre que c'est un peuple mature que le peuple que le peuple choisisse parce que 2024 c'est l'année du peuple du ñu nangu mukk ci àdduna ku ñëw 2024 naan ñu ñii la xari jaare woon un Emmanuel Macron qui n'est même pas respecté dans son propre pays mm-hmm. qui est là-bas à nous dire que le président Macky Sall est un démocrate c'est pas à lui de nous dire notre président si on doit l'estimer ou pas. le petit Macron. <laughs> Hein? c'est pas à lui de nous le dire donc de femmes loo maintenu. ko a donc nit vous nous nous commencez commencé déconstruire le ci bob aïe ay kawo la arrangé day fekk élection ndax ñun élection. bien sûr ah, ah, mais élection parce que